Euh, may wax rek euh, question wu xaalis boobu dafay firndeel injustice bi nga xam ni maanaam homme politique boobu ay militant am déjà instauré nañ ko ci Sénégal ñoom waaw ñooñu ànd ak moom ñoom de am nañu droit di dajale ay centaine de million di ko ko jox gis nañ fi ay cent vingt cinq millions dëgg lam déet yàggul gis nañ ci kenn ku bokk ci ñoom ñu jëndal ko fi oto bu bakkane sax ba yéen ñëpp boobu bëggoon ngeen ñu cotiser leen ko <laughs> ñu jox ko oto ñu gis ma ma wàcc Sénégal ñu ne dañoo cotiser 6 million jox ma ko 6 millions yooyu man ba tey teguma ci sama bët amul ay seeni dañoo def seeni mënin rek parce que ñëpp xam nañu ñoom lu ñu mën ak nan la ñuy fonctionner donc gis nañu nit ku jël ay ojo enregistré ko boppam séddale ko def comme ni sama panel la nekk ñu fay waxtaanee 6 millions te waxtaan boobu mësut am beneen bi mooy moyen yi corage di doxee bañ nañ ko ba laajuñu cotisation parce que dañoo bañ principe bu équité toujours la ñuy préserver ak dignité humaine bëgguñu wax diw joxeel ku te ku ci nekk na joxe par exemple mille francs wala mille francs dañoo ne lu waay mën te nga attan ko te nga mu jagal la ko xeex bi jagal la ko parce que xeex bi du xeexu Françoise du xeexu Kodas kese xeexu Sénégal la Sénégal dafa dafa toll ci jamono yoo xam ne chaque citoyen dafa war a taxaw défendre la République défendre les femmes sénégalaises te seetlu ngeen recrudescence bi am depuis mois de mars ci crime yi ñuy def contre les femmes donc Kodas ñu sentir que ni dañoo war a taxaw actuellement taxaw bu am bu am ñu gën a jëmmal CODAS sur le terrain fii Sénégal sinon sama xarit ak samay euh, ñi suñuy militant yu nekk bitim réew la ñu am de jegewul sax 6 millions waaye nag on s'organise très bien euh, yàlla def na réseaux sociaux yi permettre na ma ma am euh, ay connexion yu bëri ay am di jàmm ak ay soppe yoo xam ne fu ñu dem ñu faciliter ñu donc suñu li ñu soxla ñu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax waaye lu jege sax 4 euh, millions sax jotuñu ko amuñu ko donc billet bi maa ko jëndal sama bopp daal di ñëw def naa ñi àndoon ak man ko gis nañu maa jël samay ressources di ci débrouiller parce que damaa jàpp ni comme ni ko euh, Kennedy di waxee woon au contraire balaa au lieu que ngay xool lan la sa réew mën a def pour yow da ngay xool yow lan nga mën a defal sa réew ba pare te ñun loolu moo ñu pousser en avant looloo tax taxawuñu di xaar autorité yi doxal li ñu war a doxal ci réseau sociaux yi parce que demoon nañu ba xoxatal sénégale yi ñemeetuñu woon wax ba ma defee appel codage juddu ci la sénégalais yi tekkeeku yeeweeku xam ni am nañu droit léegi war nañu mën a wax parce que jox naa leen courage may naa leen fit ba tax ba tey ñu dekk plus de 500 personnes euh, dans le virtuel ëpp na ko ak de la masse silencieuse ñëw di ñu jàppale ba nga xam ne ci réseau sociaux yi léegi fu ñu attaqué l' essentiel est à dire la république wala aji Raby Sarr wala ay jigéen ci yenn anam yu ñaaw yi ñun ñu ñëw xeexal leen te loolu defe naa ni appareil politique yi ñoo ko am. aji Raby bu doon moom kese du mun a défendre boppam te gis ngeen différence bi am. ci photo yi ngeen gisoon moom ba muy def ko euh, conférence de presse am gisoon ngeen ko gis ngeen photo yi ngeen gis temps yi dans la presse donc gis ngeen changement bi pour vous dire que nit mooy garabu nit ñun lépp lu ñuy dox c'est pour le bien-être des Sénégalais et le mieux-être de la population loolu rekk tax ñuy dox.